léegi waaja dikk na fi weetul loxo yi doon jooba tokki mel ni njiit gi pareegul buñ ci teelul jóg mbokk mu chaviré suul xalaata jeex xol yi xat fenn ayeere léegi tàng soxi la ñu aaye ku ne toog di xoole ni sa koltu feete bëgg tey nu la yokkate yowre démographique 15 millions wu jëkk ndaw réalité li occident yi saka taw ñoo ko mu miin lu mu wax ñu miin ressource naturelle ñu jël saka taw dara fooratul dara doxatul moo ko sam fi jàng du liggéey ñëpp daw la uubalee la tey fi sa brain di siigee ne baadolo di fi am ñeex fi ko ñàkk buur moo ko sam di siitalee lay xëy xëy ci sey fi ko naf di jiitalee góor di fi badde si am doom jur sani mel ni ñiy ñaawal tey ñiy jur tële li fi laab tip lu fi doy war mané bay sa wara a jot walla mané am ci jaar jaar gis ne xam na ma ko la day war la ay lonk lañ ci tay ci bari pench ñi wax li wax ñi far fi ene meg ñee ñi suñu def lii ñee seetlee fatali wu yow patriotisme mission mo mbokk amul divorce radical day doxo goxam même si ay sox ñëw fulal ci tay lu ñu fay dal gaale gi waage dik mel ni njiit gi pare شافي رسول xalaata jeex xolli xat fenn aye reetul ñu woote penc ma jiitu fa ñëpp taxaw ba sonn daal di xat di dem mbooloo mooy doole mu dëgg ji wéeru te fu ah. mu nare metti xaaj bi dem gëm waru woyof ne xorondong nit bañ day nekk ci deretam respecté grand yi tarbi yu paa yi ñàkk déglu andi tere xam dëgër la woo bëgg a ñam koo gis ci loxoti iñaanam paranoïa créé noon nekk we don't give up